ci benn euh, coowal benn bu ñu article bu ñu bind di wax ci euh, benn magistrat magistère ci am na benn journal bu ko bind ne ni moom moo doon lu sàkku ci ay moroomu magistrat ñu savoir raison garder ñu def nangam def nangam entre autres sëñ Saliou euh, dañu koy déjà ba se dire en tant que mm. confrère ku ma xam aussi mm. ci ci wàllug liggéeyam yàgg na ci métier bi aussi mm-hmm. euh, bokk nañu ay rédaction bokk nañu liggéey ci lu bari euh, mu am gisinu boppam en tant que journaliste am sañ-sañu boppam mm-hmm. en tant que citoyen boo xam ne tamit am na possibilité bind wax li mu xalaat ak lu mu yëg euh, convoqué je le rappelle mooy li amoon ci fan yee passé convoqué ne veut pas dire arrêté ne veut pas dire faire ceci ou cela il a mm-hmm. été convoqué ku ñu convoqué da ngay dem wuy ji boo demee wuy ji dinañ la wax nu ñu lay doyee tontu lay doon ak laaj ak tontu lay doon ñu laaj ñu laaj la nga tontu boo amee loo ëlëm sa xel di nga ko ci wax waaye li wóor mooy dañuy seetaan di xool parce que euh, sûreté urbaine wala euh, benn démembrement bu jëm ci wàllu police wala gendarmerie duñ la convoqué mm-hmm. ci zéro ci li ma jàpp duñ la convoqué juste parce que dañoo am Euh, xalima bu ñu bindee wala téléphone bu ñu yëkkati rek ne allo Birahim euh, suba faaw nga ñëw. Mm-hmm. convoqué wu ñu nit pour le plaisir de convoquer. Mm-hmm. wala juste pour convoquer mais mm-hmm. am na lu waral ñu convoquer léegi bu demee day déglu waaye li wóor mooy euh, que la corporation puisse également ubbi seen bët xepp seen i bët di xool di. di di di lijjanti di saytu également le pourquoi de la convocation bu fekkee en tant que journaliste bu bind ci dara yoon may ko en tant que journaliste mu bind ci dara moo tax ñu convoqué ko bu boobaa nag bu yeboo ñëpp xam ne attention il y a quelque chose qui se passe dans ce pays mu ngi commencé di ëpp loxo bu dee dañ ko convoqué pour information lii laa soxlawoon lan moo tax kii kan moo bind parce que xam nga souvent nag ñun ci presse écrite par exemple dangay gis ku bind ba ci site internet yi léegi mm-hmm. bind benn article boo xamee ni soit du am signature mm-hmm. du ñu ne càlla moo ko bind mm-hmm. wala ñu bind ne euh, je sais pas tuddolee benn tur. Mhm. wut benn pseudo. am na fi ñoo xamante dañ daan bind di signer mhm. ak pseudo. Euh, je donne un exemple euh, Moussa Sarr. Mhm. Moussa Sarr lañ ko daan wooye ci bind mu signé Moussa Sarr. mais Madiambal Diagne. muy bind booba temps ci Walf Quotidien boobu ñu ngi foofu mais. loolu mën nga bind dara yenn saa yi nga bind lenn ñu ne mais ki ko bind kan la ñuy ñëw. bu ñu demee ba xamuñu kat moo bind parce que pseudo nga bindee wala benn tour boo emprunté nga bindee mais après dañ naan léegi dañuy dem convoqué ci bu dee journal directeur de publication bi wala ñu convoqué directeur de l'information ma kenn convoqué nag wala ñu convoqué directeur général bi bu ma kenn convoqué non plus ndax mu fii len lu ñu fi wax lu extraordinaire mais convocation c'est une convocation euh, il mhm. mais nu en tant que journalistes de la corporation mhm. dañu xool xam lan moo waral convocation bi ak euh, euh, lan la wund d'accord Lamine Senghor yàgg si xam leen li ngeen di wax bu baax <laughs> donc sëñ Saliou kon euh, moom yow mooy directeur de publication quotidien yor yoo nekk itam chroniqueur te Sen TV ñi ngi koy xaarandi tey bu fukki waxtu jotee ca sûreté urbaine bu Ndakaaru du ñàkk na ci kanam tuuti daan ñu fësal li tax ñu woo ko ci kanamu yoon wax ci leneen